jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñuy topp ci Medina TV ci Sénégal waaye ci àdduna wërgal këpp ñu ngi leen nuyu mbokk yi ziar leen ñaanal leen jàmm bu baax a baax tey di ko sàkku ci yéen Medina TV di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen di ànd ak moom ngir lépp loo xamante ne actualité la ci réew mi ak ci bitim réew ngeen mën koo am à temps réel mbokk yi tey ñi ngi toog ak 5 tonnes dof mi 5 tonnes ak bu ko waxee min ngeen ko ci Medina TV 5 tonnes bu ko waxee min ngeen ko ci làmb waaye min ngeen ko ci saa nekk rek tolluwaay réew mi mu ciy yëkkati kàddoom di ci àddu tey nag ñu ñëw seet si ko fas yéene xamante ne poulain wam xaritam dëgmal na ko muy guy gi yaakaar naa bu ñu nee 30 juin date la boo xamante ne kenn du ko fàtte ndax Ada Fass ak guy gi ci la ñuy laale waaye tamit tolluwaayu réew mi ku ne xam na ne nag coow li bëri na rawatina coow li jëp ci diggante Mario ak Ndate jafe-jafe sëy yi nga xamante ne am nañ waaye balaa loolu dañ koy bàyyi mu nuyoo ak mbokk internet yi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan su ko defee rek ñu daal di wéyal waxtaan bi Seng Ton ñu ngi lay am mbégte loolu ñëw fekk si la tey waaw maa lay fay di wax ginnaaw bi sant yàlla julli si yonente bi ñu sant suñu ñaari waajur di wax 5 tonnes benn ndaw la bu jud mois troisième tour hôpital di bëggee àdduna bëggee géej waaye di bëggee képp kuy bëggee waa 5 tonnes di sant sama sponsor sama premier sponsor mooy sama sponsor daal Guèye Pro Business sama xarit nekk fa xam di Binta nekk nit ku baax nit ku gën quoi vraiment maa ngi jox waa ci waaye bu baax a baax a baax. Mm-hmm. est-ce que xam ne Medina TV itam am nañ sponsor boo xam ne moom la ñuy àndal ci émission xarañ bio. Ah. maanaam góor ñi néew kàttan ñi. Ah. ak jigéen ñi bëgg forme yu baax. <laughs> benn jongoma ah. sponsor boobu la am ñoo ñuy gunge loo leen wax ñooñu. waaw kon di leen wax ne ñooñu moom ñoo fi nekk xam nga <laughs> na maara yi yoo xam sax dañu am problème ngóor kon gars yi jël oh. <laughs> ah, numéro bi dina eh, jàll à de l'écran pour produit yi yëpp yi nga xamante ne yitte woon ko wéen ngeen ko muy yu naturel pour jigéen boo xamante bëgg nga ange rafet ange yu belli def jongoma ñëwal gaaw nga contacter numéro yi waaye góor tamit boo xamante ne da nga amee bio ak xarañ bio kon mi ngi fi pour saafara ko cinq tonnes ginnaaw bi la euh, nga face to face bi nga xamante ne mujj nañ ko amal ni mu demee keroog euh, le 30 lañ war a bëre boo ñu doon wax loo ñu ciy wax. waa li ma si wax mooy au passage di santaat yàlla di juddi si yonent bi xam nga di wax guy gi. di sant ku ci mel ni Père Moussa Fall sax la may développé Père Moussa Fall borom géejawaay bu Père Moussa Fall bu Sa Thiès borom diwlin yi lépp xam nga borom nekk marché Sam nekk nit ku baax nit ku baax di sant soxnaam madame Fall di ko wax ne ko xam ne day jàppale waa làmb di jàppale waa géejawaay ci lu ñëpp yëgul comprendre te bëgg naa mu jàpp ci combat guy gi moom it Père Moussa Fall bu baax a baax waaw combat boobu li ñuy wax mooy di ñaanal ay détails ci lañ jógee bi dafa nekk combat boo xam ne passement bagam la dafa war gañ far force hmm. wuru kii sax dëkk di guy gi wurul niil wurul daana face à da ko war a duma daan ko loolu mooy làmb ji guy gi daan Ada Fass loolu du événement hmm. du événement mooy li événement mooy guy gi duma Ada Fass daan ko loolu événement la hmm. waaw lan moo tax nga jàpp ne que guy gi daf ko war a duma ba pare daan ko mais c'est normal moo booy bi moo ko sut isaan toll géej waaye gépp nee ko da daanu kon dafa war a ñëw daan mais guy euh, ci diggante ak ñëpp nee nañ ko da ngay daan a ñëw daan far force bokk ci làmb guy gi bu a Arafaas daanee day làmbam day bu ko Arafaas daanee moo ko gën a xam ne làmbam day day sooxee ñaanuñ ko yàlla te am mais guy gi dafa loolu si xelam sax wuru sax si xelam

interdit.

Euh, ginnaaw loolu mi ngi ay ndam man de barke alxuraanul karim guy gi bu daane Ada Fass bu daane guy gi ma bako barke sëñ Tuubaa guy gi dof guy gi du Ada du ko daan man de wax wax dëgg yàlla nag damaa par personne woo naa guy gi wax naa am fu ñu waroon dem xëy na nag amagul temps amul waaye bu ñu fa demee barke Muhammadu Rasulullah bu turul Ada Fass mu daanu ma xàcc yoonu murid fi nga ko nar a barke alxuraan bis bu ñëwoon ñu dem fa wax naa ko ko nag woo naa ko dem naa ba foofu woo ko jox ko te kilifa gu mag la góor yàlla dëgg biir du ñaan ci làmb maa saraxoo saraxo ba wax ma loolu ma ko guy gi dañoo xuloo ba bàyyante di soog a juboo ah, ko ñaanal mu ne ma barke barke ko guy gi mu mhm. su kooku du laaj mhm. kenn taman kilifa pire la mhm. mais barke alxuraan bu guy gi doon advance ma daan ma xàcc yoon murid mais guy gi lan lay xaar ci loolu ah moom xay na moo ko engagé démb rek vocal la ma wax dëgg yàlla rek vocal la ma sama xarit la <laughs> démb vocal la ma di ma laaj wax mu ko fayal du ma bëri di ma woo di ma fay 1 million yi daa tax ma bëri 1 million damaa nam 1 million Assi Ndiaye woo na ma fay ma 2 millions combat Tapha Tine Balla Gaye ko sëriñ bi boo téye say 2 millions téel Assane Ndiaye woo ma fay ma 1 million 500 ma ne ko téer say million 500 bu ma tegala million 500 tuddee ma drapeau. ngi de. non man ma wëri loolu moom. <laughs> Ah, jërëjëf ñaata <laughs> ah barke alxuraan promoteur yi di ma woo di ma fay ay prix ay 2 millions 1 million. ku ma ko fay barke alxuraan ku ma ko nar a fay tuddee ma làmb ma jox la 6 millions nga tuddee ma làmb barke alxuraan. non dox maa wax yow mais 5 tonnes nag kaa ñu waxante dëgg nag tey jii nag sa sa sa niveau yow tollagul ci 15 millions yi ngay laaj waaw ñoo xam ñu tee la ma jaay 6 millions te boobu xewagu ma jaay ñaata 6 millions laa jaay te xewagu benn waa bu nekk directeur banque sama benn grand brama jëndal na ma lu mat 2 3 millions 600 Fallou Ndiaye mën na ma seede Pape Abdou Fall mën na seede loolu kon tey <laughs> ak ni ma xewee nii nekk international kon mais tey proposition bi ngay laaj bu la ko fayoon nga bëri maanaam 15 millions yi foofu nga taxaw. suñu ma ko fayoon yàlla xam ne du ma bëri. 5 tonnes est ce que kon doo bàyyi xam lu may xam yow yaa xam bi. du ma saytaane man dëgg man taxawaayu people bi laa taxawee. non Gris 2 waaw Gris 2 pare naa pour bëreeg moom. Gris 2 gisoon ni mu def barki Demba Ndiaye doomu. waaw du tus du mbër mais 5 tonnes dañoo gis euh, combat guy gi bi euh, comme ni nga ko waxee da door a juboo mais da nga ci takk rip à chaque ah, cee taxagum. da rek. waaw damay bañ. Mhm. damay bañ comme nit ñi. Mhm. li ma wax noonu. li ma wax noonu. Mhm. jabaru Arafas ay dàll yu muy jaay TikTok xam naa dañ ko doon bébé muy woote waat ni muy bébé. barke Seydina Mohamed ah bu dee xam nga kay mën nga lire numéro ma ngi barke alxuraan jabar Ada Fass barke Seydina Mohamed moo lay bippe non waaw xam naa ay dàll yu muy jaay sànq dama gis tiktok bi nag xam naa ma dàll yi rafet ma kii xam naa a ku leen bëgg a jàpp jàpp leen ñaay dof lañ ñaay dof lañ dañuy dugg service te xamul li service aca jëwal gi jàppale bi gis nañ ne combat bi waaw combat bi dafa nekk combat boo xamante ni mooy li ma la wax wax naa man ñoo ngi ko ñaanal di ko ñaanalaat ndam tey moom Issa Antony géejawaay gu bëri ñu ko wax mu ne guy gi day daanu day daanu loolu war na tax mu teg ci bakkanam daan Ada Fass warul xalaat ci Ada Fass virgule guy gi événement yi mu bëree Ada Fass bëriwu ko combat yi mu bëree Ada Fass bëriwu ko dafa war a ñëw daan far force jàpp booy bi duma ko daan warul xalaat moom virgule mais guy gi dafa gëj a bëri te déjà itam bi muy génn muy génn ci làmb itam dafa am nu mu génnee woon ñu naan guy gi dafa yàqu guy gi bi ñu xamoon ak guy gi bi nga xamante ne gis nañ ko ci fin bi nga xamante ne avant muy bëre yaakaar naa ne amoon na différence ndax guy gi bu njëkk bi nga xamante ne mi ngi fi woon bu jàppee day simpi euh, ndax guy gi boobu itam mun naa ñëwaat non da koy daan day daan day daan guy gi day guy gi da koy daan da koy daan man kay li may wax rek mooy li may wax góor gu kilifa la du ma ko dem ma fa demal kenn ku soxla comme jaral yaay dem ñu ànd ba foofa nag sama père sama lépp la mm-hmm. bu ko jaralee ñu dem bu ko jëral fali laa mooy pa nit ku baax sama père nit ku baax bu waxtu li sax taxul kenn xam ko ndax pa jonn woonaa woonaa guy gi téléphone jox ko ko ba mu dégg ko damay pour ëllëg mu am ay seede barke alxuraan te bu fa deme day daan ah barke Mouhamadou Rasulullah ah a kon kon guy gi dégg na loolu. non man moom waxuma ko pour man li ma la man jaaw mbër man a jubóo a ko tegee. Mm, tëgee <laughs> bëgguñ la boo daanoon nga xam ne bëgguñ la barke alxuraanu karim mm-hmm. ah, ayca mi ngi noonu kon loolu mooy guy gi Ada Fass yàggatul la 30 juin la 5 euh, tonnes itam mu am actualité boo xamante ne fan yi lëmbee na réew mi yaakaar naa ne ñu bëree bëri rek addu ci nekk mariage bi nga xamante ne moom mooy ndaxte ak Mario ginnaaw bi bi sëy bi amee woon ak jafe-jafe yi nga xamante ne am na ba séparation am euh, mu mel ne révélation ndaxte def na ko daal di génn wax lépp loo xamante ne daf ko doon dund muy ay metti metti ay dóor euh, ak i saaga ak lu ni mel boo xamante ne borom këram tegoon na ko ko. doomaraam lañ la gën a indi di bon tey mhm. kon kooku sa yaay da jot ay coono moo tax ngay dóor jigéen waroo ci xalaat nga ci xalaat leen dudul dóor jigéen war nga koy raay di ko fóon di ko neng nengal di ko yanu di ko tàpp yooyu la bëgg si jigéen xam yooyu fi dafa la mais nag euh, am na ñoo xam moom yàlla moo bind waaye jigéen daal li ma xalaat daal mooy li ma wax jàpp di raay di fóon xam nga mm. ko bébé ztem ay booy loofi defal ko marché xam nga di waxtaan moom naan ko moo pucc ñu zemon tem toi affaire yooyu yooyu la ñuy bëgg si jigéen daal <laughs> waaye yéen nit moom ku koy def dof nga rek

xool ko ah vraiment bébé gu dëgër moom mën naa tasub sëy quoi. ayca 5 tonnes sortie bi nga xamante ne ndaxte def na ko ñu bëri ne waxu ko woon def ñi ne war na ko def maanaam génn gi mu génn wax ginnaaw bi mu demee ba mënatu koo muñ comme li olof naan ku lu ëpp tuuru mu daal di wax nag li nga xamante ne moo nekk ci xolam. waaw mooy li wax xam nga tey. man li may bañ moom laa wax chaque jour nee naa nit wóorul dañu war bas soo bis ay ay réseaux lu xew rek àdduna tollatul foofu. Mm. nga ngay jëflanteeg 5 ko ci ci YouTube wala dara. Mm-hmm. ëllëg dafa am ndax kooku day am ay doomu ëllëg moom mi def loolu noonu tey après ay doomu ëllëg dañ ko seetaan ne comme kii nii la defoon sam papa def ko ci réseaux sociaux yi dugal naan bañ ko takkee nangam loolu tamit jigéen da ko war a jombale boppam mm-hmm. jigéen dafa war a yooyu daal jigéen dafa waroon ba jigéen man de bu ma doon takk jigéen man Senghor doon du ma takk nekk ci TikTok mhm. du ma takk du ma nekk nekk ci réseaux mhm. ndax tey am na ñu baax sax ñu nekk ci réseaux yi mu ngi mel ni fookaleer yi am na ñoo xam ñu ngi leen yàqal te ñu am ñu maara baax yu man mais tey exemple jigéen ñooñu noonu tey ñoo yàqal tey jigéen ñi baax quoi mhm. vraiment Mm-hmm. tey ndax man su doon takk yàlla xam na ne kooku noonu du ko takk ndax xam ne kii du jigéen sutura quoi mm-hmm. ndax tey kooku yaayam yaayam ci yaayam ba muy sëy dund na lu gën a pire lañ ko def nii mm-hmm. exemple quoi ndax kenn ku ne sa yaay dund na ci sëy loo xamante lu métti loo lu nit mënul nettali sa yaay dund na lu tar sa yaay toog ko sa ngir dundalee leen ko sa ne ngir dundalee da ngay xam ne boo ñëwee dafa génn même pas une semaine même pas deux trois jours. dof waaw. maa maa ngi ni bàyyi laay maa ngi ñëw. baax na waaw. après ñu dem añ yaa ngi dégg. comprendre mais daal li ma la a wax mooy li ma wax noonu moo ci nekk quoi comprendre àdduna da ngay góorgóorlu mm. àdduna da ngay muñ àdduna da ngay nekk bañkat àdduna da ngay da ngay defaraat mais su ay bës bës mën nga wutee ne pas neneen mm-hmm. xama man damay gis sax léegi ndeysaan dañu nekk réseau yi di saagante nday dañ nekk réseau yi di tiktok di wax lu ñaaw après ëllëg nga xam ne boo màggatee waroo waroo doo bëgg ko seetaan quoi te ëllëg mm-hmm. dafa am tey neex na trop mais day passé quoi te adduna temps la quoi adduna adduna adduna adduna loo xam ne ku yebu defaraat sa toogin li may wax sama xaritu mbëri bu ñu waxee ñaan noo mbër ay diw du star ki nekk star mooy ki nekk këram sañse ba set toog xaar añ ba añ ba suur naan ataayam taal otom taal nga daan mu may la xaalis ndax mënoo simmeeku des na dungu ngay bëree ëllëg tey boo doon toog say doom doo bëgg a seetaan seetaan say image kon mooy loolu kon daal nañu defaraat affaire yi bu baax a baax a baax a baax te xam ne am na loo xam ne day passé na trop xam nga nga yeneen ak yeneen yu bari ko bàyyi xel ba nga xam ne xam ne day passé ndax di looy def lu ne rek yàlla xam ne soo xasee am 20 ans wala 30 ans rek di nga loo xam ne sa àdduna dina passé mm-hmm. waaw jigéen ñi tamit ñu góorgóorlu xam ne mooy li ma la sànk rek kenn ku ne sa yaay boo toogee moom wax na la kii sëyam loo xamante ni da naan yii boo yaay kon muñ nga yow kenn ku ne yow ñaata ne ah. am na loo xam ne ko ah. ne mm. yaay jàmbaar la mm. ba may yeew quatre heures matin di dem di def nangam bi def nangam mais sama yaay dafa ko fa xaar moo tax tey ma mën ko nettali mais yow ngay sëy duggoo jël say 200 mais ab say boo gis moom nekk tiktok boo buñ koy soo a takk nga gis ko tiktok réseaux sociaux loolu saytaane sax da ciy laxasu ah mais di dóor jigéen nag ba koy teg matraque itam foofu boo gisul loo xam da ngay mujjee daw nag àbb say daal dama ne doomu aadama daal li ngay dugg am na ñoo xamante ni da ngay suturaal sa bopp gëm sa bopp boo ko defee am na koo xam ne dégg naa maa ngi ci sa jigéen ñi dafa dafa dafa ànd ak benn xaritam dem di rooti quoi ñuy root di gannaaw beneen jigéen naa ko yi sama jëkkër booy li may def guddi gi dafa maa sonal nangam naam ndaw si naan ko muñal naan ko muñal quoi di ko wax ki kay net mm-hmm. bi ko doon yet la fekk ñu yeew ko ci lal bi mm-hmm. kon moo xam ne ko kii mu ngi dund lu gën a pire li li mu tam mu ngi koy dund quoi waaw mu ëpp solo ci doomu aadama quoi mm-hmm. te gis nga àdduna mun nga régler lu ne sa vie pas ay réseaux quoi man d'accord ma loolu. te kuy pour man kuy def sa vie rek nga koy paraa ci réseau kooku jar na ragal quoi. Mhm. jar na ragal. am na solo 5 la nga tàggoo. waaw santaat rek sant àdduna sant di sant ku ci mel ni Keba Kanté nekk na nit ku baax nit ku gën quoi borom boo xam borom dëkk bi Keba mm. moom ma sañoon sax jox ko CNG ndax Bira Sène xamul dara man sax na bàyyi CNG bàyyi làmb ndax làmb sponsor comme ni ma wax la mooy Guèye Pro Business di leen sant bu baax San Ndiarème borom iPhone mooy waa Guèye Pro Business di leen jox seen waajowaay mm-hmm. di la sant di sant Baye Sall tamit xam nga moom sum waay la vraiment waa Medina TV yàgg nañ trop booba affaire demeegul nii quoi yàgg na trop trop mhm. te àdduna mooy dema ma wax ngor dafa neex si doomu aadama dafa neex ba layancé man ñaar ñi laa xam si àdduna moo ñoom laa masa toog di leen karda karen kaa leen jël mi interview mooy waa Medina TV mooy Baye mi ak ku ñu wax Elmo waaw Elmo mais ñi des ñëpp sama boole ak ñoom mhm. ay Dakar bës ak ay Sine Feeling ak ay Zen bës ak yëpp moom vraiment fii sama gaale la mhm. sama kër la di wax tamit vraiment liggéey bi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax yàlla xam na loolu ndax tamit Midnight yi boo xoolee boo yi mi teg rek nga xam ne représenté na ndax li gën a métti mooy nga nekk si milieu fexe ba yow mi nga xam ne génn nekk journaliste da war a nekk bon exemple mooy tey i booy gis nga femme boobu nekk Midnight TV Mame Diarra mhm. non booy kooku noonu vraiment mais bul dund yenn yi mhm. bul def comme nit ñi def boo ko defee rek da jaay sa ngor mhm. te ding ak personnalité su dañuy si doomu aadama de mën na xaru quoi mhm. nit ku baax nga vraiment ñu ngi jox sa wàcc waay baax baax mhm. ayca ñu su nekk rek loo xam ne Medina TV yitte woon na ko di ko yombalal jox ñëpp rendez-vous mbokk yi très prochainement ci beneen gox ak keneen koo xam ne dañuy sekk ak moom waxtaan d'ici là wooy leen di topp Medina TV ci ay programme partager abonné like su